dalleen ak jàmm mbokk internet yi oustaz Tayib Socé fas na yéen génn ca TFM te ji ñu ànd ak yéen ngir xamal leen lan moo waral boobu la démission waaraatekat bu mag bu siiw bi nekkoon ca RFM te kenn umpaliwu ko fii ci réew mi jot naa déposé lettre de démission ma ca groupe Futur Média altine ji ñu génn juróom-ñetti fan ci weerum juin atum 2020 oustaz Tayib Socé di xam ne ne bile sañ-sañ bu mu jël ci dakkal liggéeyam foofule ci RFM dootu ci dellu ginnaaw te li waral mu bëgg génn ca RFM mooy ñàkk rafetlu mu ñàkk rafetlu doxalinu kilifa yi kër taskatu xibaar bii nii ca jamono joo xamante ni kile di Ahmed Khalifa Niass jotoon na fa ñëw yëkkati ay kaddu jëmale ca daram ba te mu jàpp ne yooyu la kaddu yu mu jëmale ci moom ak ay wajuram lu ñaaw la na am sax moom oustaz Tayib Socé yi le kaddu yu Ahmed Khalifa Niass ay xas la ko jàppee ak i saaga bokk na ci yooyu le kaddu yi nga xamante ne Ahmed Khalifa Niass jotoon na ko yëkkati foofulee ca quartier général bi ñu ko invité woon ci weeru koor wi Ahmed Khalifa Niass di wax ne oustaz Tayib Socé cosaan noowul ci ay garmi ab la te kenn warul di dajale xaalis manifester ngir di dimbali ab sàcc mu daal di fay borom jaaduwul ñuy organiser ab téléthon ngir di dajale alal jublu ci di génnee sàcc ca prison te ka mu doon ca gam-gamle du kenn ko dul oustaz Tayib Socé mi nga xamante ne lu bari ci ay oustaz ak i waratekat yu mel ni Iran Ndaw jotoon nañu amal ab téléthon ginnaaw si nga xamante ni téye woon nañ ko ci ca prison ba ngir dajaleel ko alal gu ko mën may mu daal di fay caution ak remboursé ngir génn ca boobule prison loolu lay bokk li nga xamante ni Ahmed Khalifa xamante ni ñuy bëri jàpp nañ na dafa ñaaw ca ëllëg sa kile di oustaz Taïb Socé moom it jot na yëkkati yenn ci ay kàddu jëmale ci mbir moomule ca boobule émission nag kile di oustaz Taïb Socé maa ngi ca doon araf tooka dànkaafu képp ku yëkkati ay kàddu yu rafetul di ko teg ci ay wayjuram yooyu le kàddu bari na ñoo xamante nañ ko méngale ak gaaruwaale gu jublu ci Ahmed Khalifa Niass waaye mel ni ku naan tontu du foroxe kile di oustaz Taïb Socé yemul woon foofu yëkkati woon na ay kàddu yoo xamante ne képp ku mu dal ci say noppi di nga xam ne kile di wax xol lay waxee maanaam dafa mer àggoon na ci bati wax naan lu ma nit wax man Tayib Socé bal naa la mais képp ku tudd samay wayjur dinaa la dóor ba tëral la ci suuf yooyu lay kàdd nag xel yépp ànd nañ ci ne ki la di Ahmed Khalifa Niass moo taxoon di ko wax ñàkkul ne coow loolu ak li mu àndal moo métti kiliye di oustaz Tayib Socé ba mu dal di démissionné foofule ca TFM lu ci mënti am daal li ñu xam ci lu leer mooy ne kiliye di oustaz Tayib Socé bés bu jógee ci foofu ca TFM dina jur mbetteel RFM dina métti daanaka doon nañu ko déglu ca rajo ba ndax bu weesoo kàddu ak xam-xam bi nga xamante ne ni tàmmoon nañ ko déglu ci moom miineel nga dina leen sonal lool te fiile ci réewum Sénégal ak sax ci bitim réew bari na ay sénégalais jullit yoo xamante ne ni bàyyi nañu xel loolu ki lee di Tayib Socé ak waxtaan yam daan amal ca rajo ba bés bu demee taañu ñàkk nag ab waxtaankat bu ñu miin te nawoon xam-xamam jërë ngeen jëf